وما ديرلو هاد لساميل خلينا نكون لو نعنا داولن غاو نتا نشارج لابليكاسيون بيت افيك بيت ونكسبت قليلا خالص نمول النخي dans un délai de 7 jours. Pour plus d'informations, appelez vite au 33 889 60 20 ou au 77 314 55 55. Visitez notre site www.ncaassurance avec s.sn. Avec NCA Prévoyance, assurez la sécurité financière de vos proches. NCA, le vrai visage de l'assurance et de la banque.

léegi nag ah. parce que rasulilah Muhammad dama doy waar. doy waar ma sax ma indi ma doy oh. ana jëy na. ñaare <laughs> kii bi rek de. <laughs> waaw soo ko xalul ñaw. baax na nga dem. jógal nga dem. <laughs> Oh, moom man woo pula woo ma Dieyna danga andi sama kii ba daaneel ko. sa yoon ne jóge nga dem danga woo ma Dieyna. ay maman ma xew ci yéen ah dama Dieyna. eh eh attends da ngay da ngay dégénéré nag woo ma Dieyna. man ba ma dégénéré rek day maman maman ma xew ci maman. doyul. ana xaaral woo sant yow rek laa jógee de. maman ma xew ci léegi de moo laa somb. oh oh my God. Mama baba yazın bitiyor. Gelirle. Move. Mayası Ne bu? Nasıl da? Ama hayır. Hayır, bu iyi. Bu iyi. Bu iyi. Bu iyi. Bu iyi. Bu iyi. Oui. Aïe, vous devenez devenu. Puis mettez-vous en Niger, les Comme tout le monde au Hawaï. Comme tout le monde au Hawaï. Pour que les gens se Ah, pour vous. Regardez, regardez, on souffre. day juufoo dafa jox xam mais maa ngi géré mais jëndee fii tamit di laaj dama mel ni fii moom il faut koo dëgg mais kii wala dinaa ko géré mais bu loolu loolu dinaa ko géré. waaw fii tamit man fii damay julli dama jàng alquran am na ci waaye mu ngi topp sama bàyyi lii yàlla. bi ma xam ne bàyyi ma yow maa ci dégg xam nga sama xarit yow am ma maman. Moussa Ndiaye bàyyi ma. maman xam nga ni sama xarit yow. problème am na de. mama, mama, jël mama, mama, mama, mama, bëgg mama, def ko ci sama xel bi. man defuma mama, mama, mama, mama, mama, jël mama, def ko sama xel bi. jantal Mama, mama man dama mama, mama, sama mama, mama, sutura. mama, mama, mama, mama, dem ba mama, mama, mama, ma mama, mama, dem. Mama, dem ba. ma eh, mama, mama, mama, suñu kër de. mama, defal mama, mama wax bu def mama, mama, mama, ñaaw mama, mama, mama, bu mama, da ngay dem. moom sama waay la. ah bon noonu la bi ah moom mooy wéttali moom laa gis. ok waaw baax na léegi ñu may ak tegu ñëw léegi may daal. waaw ñaan ma ko ci lekk ñaan man ah, maa koy sama. am ngeen problème. dina ko ba takk la. lan yow eh, wax ni de lii la <laughs> yàlla tere. ko yéeme. boo gisee def ñu def ko jaar. avocat bi gis nañu. ñu ngi taxaw ñoom ñu doon na ko bu baax. ñoom ñu jëm ñëpp. ñu luñ ko gën a. luñ ñu gën a. seen nekk fii mu ne. fii mu ne. giraawul mu xaar. ñu ay giraawul ko góor la rek. lu góor la bu garaaw comme giraawul. yëpp garaawul. yëpp naa ko géré. yëpp naa ko géré. am na géré bu baax. ñoom la sa xaw a dégg. Prego. Prego. Lalu sekarang orang juga bisa sini. Perfect nih, Masya Allah. Kan kalau sekarang Feeding to you. Iya, nih. Hah? Nanti jauh. Ki nggak ada ini. Wala, apa lah dasar? woote yàlla moo gën bu nit temps yëpp maa ngi la soxla mais aw ma fu mu la mën a jotee maman il faut nga jóg ci sams dafa mel ni ku am ay problème mhm. moo copinam boobu xaw ma ñu jotee te sams bëgg na ko gis nga nag boo leen ko seetaanee du baax il faut ma jàppale ko loolu yëpp parce que umpale woo sama diggante ak sama mag je l'aime tellement que beaucoup de dugg ci leen loo xam ne ëllëg mun na ko indil na wala da té lool yëpp je peux dire que ne amna naa si part de responsabilité parce que bu xamé ko yalla ak man ma tax dem na nag bu dugg ci mais mënuma la décrire femme bi exactement nan la mel elle est tellement sceptique baxul ci kër baxul ci àll c'est nag pour que nii dama koy yàq ndaxte jigéen laa duma yàq sama moroomu jigéen te loolu nag yow mii laa ci yaakaar pour nga jàppale ma ci man yow parce que bonooru Samsu rek man moom a ñor bu dee bonooru Samsu moom jàppal li sotti na ndax Samsu bonheur mooy sama bonheur fi ma jëlee amuma fayam moo ma jëlee ci lëndam indi ma ci leer donc lépp lu ko war a may bànneex rek dinaa ci dox yow jaay ma guerre bi baax na léegi dinaa la tegal lépp. ah waaw sérieusement si. L'amour. Pardon Vas-y là-bas. donc si je comprends bien je vais vous pour humilier le nan laa lay jegee toog des bis, là-bas comme si un inconnu. le depuis quand ça te dérange font plomb la xam nga yow danga commencé changer xam nga lan moom gën a déranger si nit. c'est quoi. nga war ma wax dara ngay tourner autour du pot li la metti do ma ko wax ñu nekk ci jamm. mais man je te comprends plus qu'est-ce qui se passe. ce qui se passe c'est très simple. est-ce que tu te rappelles un jour dans mon bureau. Tu sais, chérie, je vais me à cause de cette robe. c'est quoi? Hmm? je choisis ma famille ma femme tout je choisis tout. Hmm? et cette robe ne me permet pas de faire certaines choses Je vais maintenant. exactement comme cela je wax la ni ma je sama jabar ñaar ses qualités et tout j'ai toujours rêvé de cette femme sa kan ti bener bi ana yow xamoo heure reer ak heure heure heure heure génn yow waa mais maître moo tax ma togg reer bi mel kese mel kese moo fi nekk pour ñun la mais balaa ngaa Orang reer bi waroon nga maa voilà point bu beneen question ñu waat. waaw Moussa jaaxle woo. amaa mm. maa jaaxle yow. wala ngeen ñebe jaaxle woo. Mm. Mm. maître fan nekk ba heure bi ñëw. ñoo ma dimbali guddee na.

du yow pardon mani du yow yow lan nga ma xamal ba ngay naan mu man je ne suis pas ta femme xamaluma la dara dara mais ma petite sœur xamal na la lu bari ah bon oui <laughs> donc loolu moo tax nga sa papa mu ñëw ci sama kër waaw xam nga lu tax ok eh Tu une menteuse. Et je ne peux pas vivre avec une femme qui ne respecte pas ses parents. qui ne pense qu'à elle, qui pense que Adunabi, voilà, se donne dans J'en veux pas. J'ai une femme qui me complète, une femme qui me dit vrai, une femme qui m'aime et temps. Parce que moi, Sam, moi, je t'aime pas. mbëggeelu franc frais, frais. j'en ai pas besoin xam nga lu gën a fort mbëggeel mooy nga et tu ne l'es pas. kon maître foofu la réer yi jeex. ah waxuma ko de ay laaj ku doxaan yi moom waxuma waxuma waxuma waxuma lu ma wax. waaw moom. daa bëgg ndaw si xanaa. biir lool. ah ah ah ah allo allo ñëw dégg nga xale bi xale bi fii lañ taxaw mu ne ma fi ma jàpp metti su ma fa jàppoon sa baay lu ma ko wax mu ne waaw day mais daf nopp que maître war na toog la wax loolu maître waxuma ko xale bi moom ko wax non non ne xale bu jigéen bi laa wax yow waroo ko may genre kanam yooyu sax loolu dafa ëpp Eh. Eh. Eh. yow lu sa yoon yow ñoom ma fu ma jàpp maître rek ngaa xam man damaa xam dafay naa ye ma ne booyam yow na yàlla dimbali toute façon bonheuru maître moo ma tax te bu bëgg na ndaw si waale c'est fat naa may sama bët sax yooyu wisee ñu bënoon maître ayo aussi daane woyu yéena wisee ñu bënoon maître ah yow bëggoo bënoon maître yow sëy bi bu dee bënoon maître yàlla bu mu am point non am am beneen maître la am beneen maître am benn fula sa bopp waaw man la sama yoon yaa ko wax. dama ko yéene ndaw si comme bëgg na ko léegi lan la. man bëgguma ndaw si bu ko loolu yàgg maître la man dinaa tëdd sax. Amar. caaw caaw. caaw Adama. Dinaay naa mere. ah bokkul ak eh eh oui ma oui feccal maa naa day jël maanaa ko la ñu war maanaa ñàkk fayda werden. Hm. Relative, relative, relative, relative, relative. Relative, Diego El Diego Nanira. Sia Assurance Vie molin Donmai doon may série Le Secret xéwal bu neex laa leen di indil pour yéen ñi di jouer 1xbet mën ngeen utiliser sama code promo WALF da ngeen koy bind en majuscule ngeen dem si sama commentaire yi am na lien bu ngeen fay fekk ngeen bës ko télécharger d' abord l' application 1xbet ensuite ngeen def dépôt pour mën a am bonus ba 156 000 ndaxuma leen de te li ci gën a neex mooy soo dugalee xaalis ak nu mu mënti toll dama la koy rembourser c' est à dire soo dugaloon 50 000 tey dama lay delloo 50 000 nga dugal 100 000 وما دير له هاد لساميل خلينا كلو نعنا داولن نقاو انت نشارج لابليكاسيون ونكسبت افيك ونكسبت غاني لنخالص سي نمول الناخي